man nag Mor Ñang laa tudd waaw ñi ñu nekk fii ñëpp maanaam euh, dañoo def benn collectif maa ngi wax ci seen baat après bu ma noppee itam danaa leen booleeg ba beneen jàll leen benn waay bu ñuy wax Pape Wade nga xam ne itam ñoo bokk nekk encore moom it mu ci xalaatam mais li ñu nekk métti na ndax amuñu ndox amuñu naan Mauritaniens yi nanguñu noo bàyyi ñu dugg ni wut ndox ni lekk ni dara ndax lañ fi dund ñaaw na. en tant que ay sénégalais nga bàyyi leen fii ñetti fan yoo xamante ne ji fii poussière bi rek mën na noo feebarloo te noonu bi ñu ñëwee bi ñuy dugg Maroc xool nañ ñu dara jotuñ bi ñu génn Maroc dugg xool nañ dara jotuñu bi ñu jotuñ fii Mauritanie encore xool nañ dara jotuñu ku dara jotuñ nag yow xam nga ne dara jotu wax yàlla war nañ la ba na ma bàyyi nga jàll en tant que sénégalais nag ah noonu ñu ngi jàmbat daal gouvernement bi ñun ñoo ñoo mën a jàppale fii. ñu toll ñu ngi ci métti wu tara tara tara tara ñu ngi ci lu métti waaw ndaxte fii ñu ngi si condition yu misérable yi inhumain lañ nekk

mu wax ak moom mu ne ma ñu ngi jël seen cas en charge loolu lundi matin la ba fii may wax ak yow ambassadeur bi rappelé waatul ba instant bii may wax ak yow fa restaurant te bi rappelé woon ma jëlaat sama téléphone woowaat consul bi mu ni ma ambassadeur woo na ma foofu la yem ba ay 18 ci la commandant gendarmerie mauritanien bi jox ma numéro téléphone représentant sénégalais yi nekk fii Nouadhibou ma woo ko ah moo daan ni ma d'accord léegi xaaral ma wax ak kilifa gi ci la wax ak conseil beeg yooyu ay une heure du matin la ñëw fekk ñu toog ñun ñëpp ci conditions yi mét mu yëkkati telef mu yëkkati ay mburoog ay sardi nag affaire yooyu indil ñu ay ndox waaw léegi ñun suñu autorité yi lañ bëgg a xam ba xam ñun dañoo nekkul ci yoon ba tax ñun ñu isolé ñu fii wala nu mu demee noonu ñun même bu ñu dee mettre en quarantaine suñu autorité war na jóg ñëw jël si ñu ñu dugal ñu fenn ñu nekk fa ñu xam ne ñu ngi ci dëkk mais fi ñu ne du dëkk guddi gi lu nekk lañ fiy gis te onze degré lay def à ci guddi gi onze degré laa la wax lay def sedd guy te parmi nous y a des am na ñetti jigéen ñu fi nekk yoo xamante ni gu jooy la ñuy yendoo waaw bu bëccëgee sax dinañ tranquille mais bu guddee dañuy fanaanee jooy sedd bu méttee fi ne lekk ñu naanuñ conditions yi misérable lañ nekk yéen nag suñu autorités yi moom faale wuñ parce que nii ko le consul nii la ambassadeur kenn faale wuñ ils sont pour nous ñoom buñ fi nekkee ñun ñoo tax et comment se fait-il que nag ñu nekk ci condition yi métti yi nii amul ku ñu faale amul ku fi ñëw alors que les les français les espagnols seen consulat moo seen ambassadeur moo déplacé wu jël oto ñëwal otoom ñëw ba fii fekk fi ay nitam ay ñaari espagnol dong la doon jël si ñi si des ay français la mais vu que comité européen bi la ñëpp la yóbbaale ndax union européen bi parce que bu benn ambassadeur xasee taxaw taxawal na vingt huit pays wala trente neuf pays wala cinquante pays union européen yëpp mais ñun lu tax ñun suñu ñun ñu ne ay frère lañ ak Mauritanie ñun mënuñoo ñoo considéré ah c'est c'est du n'importe quoi ñun wala ñun ñii nga xam te ñooy sénégale de l'extérieur dañoo tekkiwul dara wala